Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Malik Fall. absent, suivi de Mohamed Ngom. Difawa. Vous, vous retirez Vous Oui, Suivi de Sanou Merci, Monsieur Président. Merci, Madame ministre garde ak les ministres et vos collaborateurs. Chers collègues, mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen xamal ne loi bi ñu fi indi te mu nekk amnistie te li ko waral ak li ko lal yépp du début à la fin réconciliation nationale nañu fexe juboo ànd nekk benn raxas xol am na solo leneen li ci topp encore monsieur le président Macky moom mi nga xam ne dafa toog dialogue assumer sa responsabilité yi daa bëgg ñëpp juboo te li ko desal fii ci bopp réew mi bareetul mais mu war a dem di xalaat askan Sénégal ku ñu war a jaajëfal na si bii am na ñuy jëloon kàddu ne ñu ngi ci laxas leneen ak leneen merci à Macky di indi loi amnistie di ñu ñuy jéggalante suñu biir réconciliation nationale problème budget problème finance zéro dara bokku ci loolu am solo la ci biir réew te te yàlla dogal mu gouverner depuis 2012 lu bëri am fii chaque année état du Sénégal ci coobaree suñu borom ak ndigalam di gérer les milliards de ce pays lu ñuy ku ci yëkkati kàddu ñenn ñi di wax pour bëgg ñu gis leen ak télé yi ak caméra sacc sàcc fii dugg na fi génn fii mu bàyyi quel que soit le chef de qui va venir après lui xool li nga xam ne les finance publiques de ce pays naka la ak comment ça s'est loolu aussi am na solo trop ci ci ci loi d'amnistie bi en tout cas bandiraɓe mi salmini on mi juurima on mboɗo yiɗi kettoɗon oɗo loi kaalateɗo ma wonno nanirɗon no on paamirani kono ngannde ko woni anniye makko kanko mawɗo leydi ndi makkisal ko yo yimɓe ɓe jarlodir jaafodira gila omo ɗo o yahaani omo heedi d' e hoore leydi ndi ko adino mo yaha yimɓe ɓe dokkodira juulɗe jarlodira jaafodira mboɗo sikki noon juulɗo so wi yo yimɓe jarlodir jaafodir o haalaani ko boni e ko paammi ɗum noon yo adunoo wattu heen hakkille kadi yimɓe ɓe paama won haalnoɓe mbi loi amnesty o ko woni président 2012 faade joni jawdi ñamadi ko fewna ko waɗa budget leydi ndi ɗum nanna kay loi amnesty mbaɗaɗo ɗo ina moƴƴi yimɓeɓe paama ɗum probléme uji noon waɗi wara hooreji waɗi maayɓe waɗi gaañiɓe waɗi boniraaɓe e gooto fof ɓernde mum wonko woni heen ko tunmi walla ko mettini o waɗa loi damne woote yimɓe ɓe mbaawa yarrondirde jaafunda sénégal kontina o ɗacca ɗo leydi gonne jaam ɗum ko omo toppiti leydi ndi nde woni ɗo nde omo yiɗi kadi leydi ndi kontina e yaade jama cellal kisal caggal makko kanko mawɗo leydi ndi président makky ɗum waɗi min farɓe ngom mboɗo waɗi fiére e lamtoro makky no feewi e golle mum e jikku mum heddi ko noon e, dafa am loo xam ne ne comme am naa tuuti occasion duma ko rate demoon naa ci émission Maimouna Ndour Faye jël fa kàddu défendre cette loi d'amnistie ñu indi ko fii ci assemblée nationale ma ko war a voté ñi ci jëloon kàddu di mon ami Clédor tontu na mon ami Damboj tontu na na leer na nag Damboj nee na xamul sama numéro oui xamul sama numéro mais xam na ma te loolu dinaa ko leeral ba mu leer nañ bi ñu demee dugg ci biir pale bi bunt bu ndaw bu ñu génn xamul li tax ma jaarloo ko foofu man xam naa man li tax ma jaarloo ko foofu yëf yi dina leer naa ko wan ne fa bokk fi ma ko jaarloo xamu foo maa ko gën a miin moom ak ñu mu àndal kon nag wax bi dina leer ba nga xam ne ne yaakaar naa loolu su leeree ba nañ dootul jël kàddu wax ci kanam askan bi ak nu mu baree wax wax suboo wax ngoon wax guddi wax bëccëg ñun ñi géwél yi sax bareetuñu wax géwél ñi nga géwél sax bëreetuñu wax mais su ma paree ak ñoom jàmm na ñooñu. merci chers collègues la parole est à notre collègue euh, Sanou John suivi de Ahmed Aïdara.